ponkal bu toll nii ah kër cent et quelques kilos ëpp booy ñaa mënu fexe ba bëre téye ñaari songa fa am booy ñaa ko def dóor ato booy ñaa ko yóbbu ato mais war naa xaaju sax. ñoom nee nañ que CNG moo leen xeex parce que euh, daan na ko si. waay daan non non boobu sud amul. daan yow ñu daan ko mu yaay daan daan yow bu yow bu ñu bu ñu daanoon kon ba joxe at bi joxe na verdict wet bi wet bi euh, Boy Niang maye est-ce que est-ce que est du erreur. non nungul ñëw moom. moom nungul ñëw. mais est-ce que du erreur ci Boy Niang la wet bi mu maye. yow mën na lu ko jox. mën na lu mu jox la dëgg lii lu mu def deful dara du def dara du bëree Boy Niang dafa bëggoon mu bëree comme may na ko loolu mu bëree man kay moo may woon ma bëree daal mais mais comme li sama confrère wax nekkul danger parce que boo xoolee après ci loolu la la la la déglu ma Boy Niang mooy faxat Boy Niang mooy vidé mooy def lépp lépp Boy Niang koy def. waaw nan nga ko dundee. waaw neexuma su sañoon damay daan waa ji mais nag Lac de Guiers euh, ñu ne fi mu nekk mu ñëw si Boy Niang ne bàyyi na lu bëri taxaw je crois que am na combat ñaara koy def man je crois que li mu waxoon yëpp bu ñëwee xam nga day rayante mm. mais nag Cheikh. sport dañu na ñetti yi moo si am da ngay daan wala ñu daan la wala nga match nul gën a bon mooy daanu yàlla ñu si yàlla musal comme match nul nañ li ñuy def mooy yoon a ngi si kanam am nañu fi bëreeg moom ñaari yoon mën nañ bëre jeeg moom suba mais lan moo tax benn moment euh, booy gis nañu bi arbitre sifflé mu ngi doon jéem a diriger mais bi combat bi demee ba ne diib dafa taxaw lu tax waa xam nga am na benn instant man maa ko ne la de guerre am na am na trois avertissement deux avertissement nga am xam nga wet moom si làmb kenn du ko joxe mais lan moo tax mu joxe ko. mais si biir si biir combat la combat erreur day am da ngay oto war a dugal troisième dugal quatrième. kon la. erreur la mais xam nga ne mbër mbër du bëri la. ma ne yow dégg ma li mu def noonu ma ne. xam nga wuure boo leen weccoowee. erreur mën na am mais mais mais sa wet saa yoo ko joxee faible nga. mais heureusement dafa joxe wetam ba pare rectifié woon. mais pour yow chute amul foofu. non foofu trois appuis la parce que loxo baa si kaw.